ahlan wa sahlan dalal ak jàmm safar yaay sunu mbég yaay sunu weer saharu safar ahlan wa sahlan dalal ak jàmm safar yaay sunu mbég yaay sunu weer saharu safar ahlan wa sahlan dalal ak jàmm safar yaay sunu mbég yaay sunu weer saharu safar yaay weeru mbég tamit safar yaa nuy bégal weeru safar yow yaa di weeru màggal yaay weeru mbég tamit safar yaa nuy bégal weeru safar yow yaa di weeru màggal yow boo desee ay weeri weer ñu waaj la ngir sayxu bamba rekk tax ñu fonk la sun bis bu màgg bi ñu am mu digle ko te nee na moo di bisam ñu fonk ko sun bis bu màgg bi ñu am mu digle ko te nee na yit moo di bisam ñu fonk ko fukki fan ak juróom ñett ci safara la mooy sunu bis ñun fonk nan la yow safar weeru safar yow soo teroo ñu ñépp bég sun xol yi féex sun xel yi dal sun lépp jàkk weeru safar yow soo teroo ñu ñépp bég sun xol yi féex sun xel yi dal sun lépp jàkk mbégte mi ñëw yow yaa di weeru mbégte xéewal yi dolliku ñu am ay yokkute sunu sañoon nga sax fi ñun dëkke fi ñun ba faaw ndaxte yaa di weer wi gën fi ñun sunu sañoon nga sax fi gën fi ñun dellu màggal gi te gën a fonk ab bisam mooy raw gi màggal Tuuba màggal Tuuba di su safar moom lanu am mooy sunu bis na def ci lépp lu nu am màggal Tuubaa di si safar moom la nu am mooy sunu bis nan def ci lépp lu nu am ginaar ga leem koppin xaraaj ba yekkewal ak kuwaa ak jamala lépp defal ginaara ak ba ay pitax ak lu nu am ci xeeti bernde nan ko def li ko yéem lu mën a am lu mën a doon nan ko ci def si gansur waa siin waa réew mi mépp xarlu leen du leen tawaaj Europe Asie waa Amérique na ñépp waaj waa réew mi mépp xarlu leen du leen tawaaj Europe Asie waa Amérique na ñépp waaj dul ko nag demuk sëriñ bi ñépp dem ñu raanu lii ko warna nan ko xam budul ko nak demuk serigne bi ñepp dem niiraanu li de xam ko warna nan ko xam ahlu qasida seexa di ñaanal ngeen gudd fante werta jekku màggal murid yi ñepp jekku magal ne len amin ci barke mam si ibra fall yal murid yi ñepp jekku magal ne len amin ci barke mam si ibra fall subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin